Pape Dieng jërëjëf la présentation je pense a été complète dañuy dugg rek ci vif vifu sujet bi kon euh, yéen suñu mbokki taskatu xibaar yi yéen mbokki kajoor yi teew fii kuréel bii nekk fii ci kaw table ji ak ñi ñëwagul tey ñëw ñun ñëpp ñu am benn kilifa ci politique muy président makisal ñun ñoo daje fii pour wax ci lii lëmbe réew mi xew ci réew mi ñu war ko waxtaane woon président ni ko sa njaboot ba nekk département Tivaouane lënkaloo nañu nekk benn pour yow li nga bëgg bu ñu demee référendum le 20 mars ñu defal la ko mooy ñu voté le oui ndax li ñu jàpp mooy président bi nga xamee ni mi ngi def réforme bi réforme constitutionnelle bii nga xamee moom la def dafa ne bëgguma mu jaar assemblée bëgguma mu jaar fenn dama bëgg consulter directement ñi may consulter mooy ñan mooy ñi nga xamee ni nii mooy peuple bi parce que peuple bi rek moo am souveraineté kon nag président li mu wax mooy nañu def référendum réew mi wax lii nga xamee mooy fukki poñ ak ñeent yi nga xamee moom la leen tegal ci kaw table bi nangul nañ ko ko walla leneen ñun nag waa Tivaouane ñu wax ni d'accord nañ ci à 100 pour xam nañu itam ñiy coow dafa am lenn rek lu leen yëkkati mooy daal ñoom seen gént ak seen xalaat moo doon élection bi nañ ko def 2017. ku nekk nag dangaa xëyoon tàmbali def sa campagne te campagne jotagul kon nag bu ñu demee ba yàgg ñu ne élection bi 2019 la te dañuy def réforme constitutionnelle bi maanaam soppite yi nga xam ne dañ ko bëgg a indi muy soppite ci biir charte réew mi ñu fàtte fukki poñ ak ñeent yépp jàpp benn poñ boobu loolu nag du dëgg du yoon te ñun ci ci département Tivaouane dañu bëgg buñ cee yegg ak jàmm ñu won président yi xawma ban département ngay wax de waaye département Tivaouane nañu ànd ak yow li nga bëgg ñu kon nag li ñu jàpp mooy feebar bi am ci réew mi politiciens yi ñoo ko indi waaye ñi nga xamee ni nag dañoo bëgg yokk doole réew mi yokk doole institution yi mooy maanaam yi nga xamee ñoo yor réew mi ki ko bëgg a yokk kooku wàññiwul dara kooku dafa jël cër yi daal di ni cër yi ma yor kat naa dooleel ñeneen yi waaye man sama cër bi ma yor sax naa wàññi doole yi loolu mooy démarche bi nga xam ne moom la président def ndax président dafa wax ni damay yokk doole assemblée nationale ba assemblée nationale gën a am sañ-sañ ci ni muy contrôler euh, doxilinu gouvernement bi président wax ni damay fexe ba collectivité locale yi nga xame ni ñooy gouvernement yi nga xamee ñooy gouverner ci biir gox-goxaat yi ma fexe ba wutal leen un au conseil des collectivités locales may leen doole joo xamee ni buñ la ñuy def dara consulter leen ba xam li ñu bëgg dinañ ko mën am wala de président wëlbatiku nii itam damay fexe ba opposition yi ma organiser ko ba ñu am chef am statut président wëlbatikuwaat nii dama bëgg conseil constitutionnel bi nga xamee ni juróomi membre la woon ma def ko juróom-ñaari membre te ñaari membre yi euh, euh, président assemblée nationale moom moo koy tànn ba pare ma yokku tam prérogative bu conseil constitutionnel ba may ko muy mën a atte bu ñu defee loi mu xool ndax loi bi dëppoo na ak constitution wala dëppoowul ak constitution loolu nag ki la ko defal te lim lay may yëpp moo ko yoroon mais mu jël ko di ko jox ñeneen kooku kay bëgg na jàmm il faut ñu expliquer nit ñi lu leer. ñun daal fii ci département Tivaouane xam nga suñu waxu tey bii wax ak expliqué indi fi xam nga lu ñu fi indi mooy wax ni ñun ñëpp takku nañu lënkoo pour li président bëgg ñu defal ko dugguñu ci ay débat juridique ak ci nangam xam nga daal lu ñu soxla mooy président daal yor na réew bi mooy suñu yaakaar ci politique ci moom la ñu yaakaar itam ba lu ñu bëgg a tabax ci Kajoor ñu tabax ko te tàmbali na li mu bëgg mu joxoñ ko loolu lañ koy defal mooy voté vraiment wax ko ni ko réew mii kajoor gii ñu bokk ñun daal lënkoo nañu te li mu bëgg dinañ ko defal bu ñu yemee le 20 mars incha mooy ñu voté ko oui avec une grande majorité ah li ci des nag mooy ñu sant ñëpp gërëm ñëpp am na ñu jóg di wax bi jël seen plume di bind mel ni Abdoul mbay nga xamee dafa nekkoon premier ministre pré euh, euh, président président buqee ko fenn rek jëlal ko boppam teg ko suñu kaw ñun ñëpp mu xëy tey naan waaw man d'accorduma ak mais bu fekkee d'accord yow yaa ngi nekkoon premier premier ministre président nekk nga ko lu war a mat ñaari at lu tax jamono boobu waxoo ko ni ko dañ def réforme yi xanaa toog ba génn ci gouvernement bi di ko wax loolu ñun dañ ko dénoncer ñun responsable politique je dois dire que day Pape Dieng a insisté particulièrement pour que ñu dénoncer acte ko pour wane ni réew mi il faut nit ñi ku ne xam sa place ku ne xam sa place te itam ñuy bañ a bottante nit boo ànd moom ci ngor dangay ànd ak moom ci ngor boo ko waree conseiller nga conseiller ko ci ngor mais dem ba nga xamee ni place bi nga yoroon yorotoo ko nga taxaw di sànni xeer parce que da nga am agenda ñun ay bouclier la ñu taxaw nañu pour ni loolu du fi am loolu wax. kon nag ñun waa APR Tivaouane sama déclaration bii nag ñuy wax ak Benno Bokk Yaakaar yi nga xamee ni ñoo ànd ci liggéey bi ma leen di wax ni leen ñun de taxaw nañu tem ki ñëw ak ki ñëwul yóbbaale nañ ko ku am ngant yóbbaale nañ la waaye nag li xew fii tey ci kel na ngeen xam ni ñun ñëpp ñoo ci ànd document bi ñëpp jot nañ ko ñëpp d'accord nañ ci pour ñu génnee ko nii mettre ko à la disposition de la presse ñu xam ni ñun ñëpp ñoo ko ànd ku ngeen fi gisul tam da ngeen xam ni ngànt la am ba ñëwul mais ñun ñëpp d'accord nañu pour que déclaration bi ñu def ko ba pare nag sumb liggéey bi ba président bu ñu demee le 20 mars li ñu ko wax ñun daal ñun ay njaboot lañu boo xam ne dañuy ñime suñu kilifa waaye duñu ragal la suñu kilifa. président na compte ci ñun dinañu mobiliser battre campagne avec un oui massif incha allahu rabbi avec un score soviétique ba nga xamee ni 85 pour cent yi ñuy wax 90 pour cent ñu indil ko ko fii ci département Tivaouane teg ko ci loxoom mu jiite réew mi développer réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullah